ma di ko rafetlu lool nag parce que wax dëgg yàlla bu ma toogee ba ñu jëlaat ma ndax conseillère laa woon mais dañ dama toogoon léegi doonoon bi ñu ma jëlaatee nag dama ci fier dama cee kontaan parce que ndaxte nit ki bu fekkente ne dañ laa jël ngay représenté ñi nga xam ne ñi ñooy askan bi da nga war di teew toujours man sama sama gis-gis mooy man ndegam dañ maa jël comme conseillère bés bu nekk bu neexee yàlla heure bu ñu convoqué dinaa ñëw teewal si askan wi parce que askan wi ñoo ma fi tax a toog ndax euh, bu fekkee ne maire daf leen doyloo indi leen fi ñu doon ay conseillers du ñu ñëw du ñu teew kon ñoom du du ñoom du ñoo xam ne ñii ñuy votel seen askan lañ defaluñu waa Ndofane loo xam ne lii lu lu leen di jëriñ la parce que lépp loo xam ne lii def nañ ko ci conseil rek luy jëriñ Ndofane la. te Ndofane moo ñu tax a jóg kon man suñ ma jëlee ma doon conseillère damay ñëw représenter Ndofane lépp lu ñu wax ci lu baax loo xam ne lii dañ ko war a def dama ci ànd ak ñoom. mais am na conseil yoo xam ne dañ leen a convoqué à plusieurs reprises ñëwuñu participer véritablement au conseil donc te loi bi dafa wax ne su nekkee ne da ngaa toog ñetti conseil yu teglante ñëwuloo wax dëgg L l' article L cinquante six cent cinquante six moo la mooy permettre véritablement la municipalité ak l' ñu démettre la c'est ça loolu moo tax véritablement ñu ñun ñu accepter parce que xam nañ ni la mairie a suivi les procédures normales voilà véritablement et tout s'est passé lépp ñu ngi jaar ñu ngi ko def ci contrôle légalité lu ñuy wax contrôle légalité nag moom mooy ki nga xam ne nii mooy sous-préfet moo ko moo ko chargé wu donc moom teewe na loolu dëggal na ko wax firndeel na ko wax dëgg yàlla loolu amatul ñu ci kii effectivement modèle la conseil municipal Ndofane modèle la lu tax modèle la parce que dañu wax a xam ne représentant localité élu local dafa war a respecter population yi nga xam ne moom la demoon pêcher seeni voix ñu jox ko loolu lu am solo la parce que wax wax dëgg yàlla waruñu laa jox confiance nga trahir la confiance véritablement de cette population lu tax luy ko trahison bi mooy jox la investir la ba pare jox la nga doon euh, conseil municipal yow buñ la convoqué doo ñëw teguloo ko fenn même bu nekkee ne d'accord loo ci doxalin bi conseil municipal bi di damaa yaakaar ne war ngaa mun a am fair face wax say argument teg ko ci lu leer parce que c'est la démocratie su nekkee ne am na ñu ànd ak yow ci sa kàddu ci ci ci loolu ngay défendre wax dëgg yàlla moment vote bi bu ñëwee ñoo dañuy ànd ak yow ça c'est la démocratie. bon di am ay kaddu rek yu may yëkkati euh, jëmale ko ci opposition yi nekk ci dëkk bi euh, xas suñu leader muy monsieur le maire maam Samba Ndiaye di ko wax lu ñaaw te ñëpp xam nañ ne euh, Samba Ndiaye moom dafa doon leader boo xam ne du xas kenn du xuloot kenn ñun nag lim ñu yar mooy duñ xas kenn du ñu xuloot kenn ci politique yàlla def nañu ñu ngi ci politique bi yàlla di ñuy may ay projet yoo xam ne euh, askan wi ñu ngi ñu ngi koy gis di ñuy gën di bëgg kon yaakaar naa ni ñun suñu arma du xas du xuloo waaye defar defar moom mooy suñu arme donc di wax ne rek euh, yu bëri xew na fi euh, li ci mel nii tey conseil municipal bi ñu doon def ñëpp kontaan ci waa dëkk bi yëpp génn kontaan ci ndax demoon nañ ba xaw a tiit ndax yaakaar ne conseil municipal bi dina am lu ci yàqu intérêt Ndofane ñi bëgg Ndofane ñëpp ñëwoon nañ euh, waaye yàlla def na ni conseil municipal bi euh, teg waat na ci yoon ndax euh, yàlla moom bu fayee xolam maire bi nga xam ne moo jiite dëkk bi rek du am problème yu demee noonu donc li indi problème yëpp mooy ñëpp xam nañ ne conseil municipal bu Ndofane depuis 2014 am na ñoo xam ne mosuñu ñëw conseil am na ñoo xam ne depuis 2016 mosuñoo ñëw conseil yemuñ ci ñàkk ñëw boobu ñu dem nag di ger ay conseil pour que ñu bañ a ñëw pour yenn intérêt yi nga xam ne mu ngi war a ñëw Ndofane li ci mel ni comme projet yu dul jeex am na benn projet boo xam ne trois trois cent neuf millions la donc kon yooyu ñëpp xam nañ ne Ndofane soxlawu na ko waaye it di féliciter conseil bi bi nga xam ne dem nañ ba yàlla may leen ñu dal toog xelaat ne Euh, lii nenn rek lañ koy sauver mooy dajalewaat conseil bi ñu xool ñan ñoo ñëw conseil ñu dem saisir la préfet mu ñëw taxaw ñu xool yan sanction la ñuy jël ci ñoom remplacer leen donc gars yi def nañ ko euh, mot na euh, sept conseils yoo xam ne remplacer nañ leen kon ñun waa Ndofane ñun jeunesse Ndofane ñu ngi leen di féliciter di kontaan ci fee yooyu ñu def.